far lool bu ànd ak yow. parce que lii wax ma ko woon quoi. Hmm. man sama mag euh, daf ci keroog man sama mag ñu euh, ñëw sama nekk ne ma naa ko ko yow quarante ans la parce que dañuy bind si. Hmm. dañ ko mën a a ma jàpp. dëgg la daal wallaahi dama liggéey ñu jékki-jékki rek lool. parce que sëy naa ma ndax doom nañ nag gërëm bu ndaw quoi mais ñoo ngi koy ñaanal ñoo koy sant bu baax a baax amin amin lépp lu ñu gën ci réew mi rek yàlla na ko suñu borom teg loxo amin amin amin waaw dama defoon demande aha ñu ko borom ko dafa gaañ woon ba bàyyi ma ay xale ndeysaan ma taxaw ma def demande pour tourisme pour ma bëggal leen daal ndeysaan ma am yaakaar ci moom ma sant yàlla ba ma ba ma ñëw ndeysaan dama tori ñëw na ma rafet ñu ne jëf am ma ko maaleykum première dame maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm li nga ñu defal li lu rëy rëy la suñu xol ndax yàgg na ñoo lii waaye lu mel masuñu ko bu lee tey ji ma am ñu lay di la gërëm yoof lañ jógee ñun waa yoof yëpp ñu lay yoof kenn kenn am di la sant di la gërëm di ñaanal sa borom kër yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba sa kanam ak la ya na mais ba nga ñu def ba nga ñu dalee defal yàgg na yow nga ñëw def ay wari. Mhm. yow yëpp am wari. ndeysaan kenn manqué wu. Mhm. ñi am ay cent cinquante mille. ñi am ay deux cent mille. Mhm. kenn manqué wu. dara jërëjëf jërëjëf lay sant di la gërëm.